li ci am solo lenn la dañoo gis ne que problème yi bare na fu ne dans Dakar mais ñu gis ne que Hann bel dafa soxla woon benn programme spécial programme boo xamante ne dafay defaraat tali réhabilité mais mooy li ñuy def tey mais programme boo xamante ne aussi dafay tabax tali parce que li ñu soxla woon ci tali yi ñu war a tabax umpale woo le ne que Mariste dafa nekk quartier boo xamante ne mi ngi gën di màgg te buy màgg il faut que mu am ay équipement collectif yu leen di accompagner bi ci jiitu mooy li nga xam ne mooy voirie yi mooy tali war nañ defaraat tali mais war nañu aussi tabax ay tali tey conseil municipal de la ville de Dakar dafa jël disposition pour ñëw war a tabax ay tali ku xam Mariste xam sorti Cambérène maanaam jëmale ko Jamil Koro ba euh, pont wu Cambérène xam nga ne ko foofu soxla nañ fa liggéey beneen élément bi mooy ku xam Mariste nga gis voirie buy jugee pharmacie Touba dem ba école Mariste dafa nekk une ligne. boo xamante ne c'est plus de neuf cent cinquante mètres foofu ñu prévoir tabax fa nga xam ne que loolu dafa am solo surtout par rapport au cadre fi vie. loolu ku ko am wax dëgg yàlla muy financement bu am solo boo war a jugee ville de Dakar ñëw egsi ba fii ñuy def entretien bi ñun dañuy jàpp ne que ah wax dëgg conseil bi ñu ngi déglu askanam. man mun naa wax mais bu ma ñëwee indi ñu gis ne que quartier quartier quartier sàngam indi nañ teg nañu loolu dafay gën a motiver que lii c'est une demande des populations. bëggoon nag mooy population yi ñu xam ne que ñi ngi bëgg seen collaboration ci li ñuy def collaboration mi ngi commencé ci kaw booy occuper espace publique voie publique muy lu mel ni trottoir ngeen xam ne que tey boo doon wër bari na ci ñoom ñu mënul a génnee autorisation.